Ali moo tax ma ne loolu c'est une campagne électorale déguisée euh, sous un manteau de tournée économique mais ça n'a rien d'une tournée économique ok euh, déjà ñu dem ci euh, mbir bi nga xamante ni c'est une question d'actualité une question judiciaire Euh, boo xamante ni gis nga les avocats de Ousmane Sonko dañoo porte plainte contre euh, Mahmoud Diallo contre Adji Sarr contre également kii di Ahmed Sidi Mbaye mais aussi contre également une autre personne la en la euh, au nom de Viviane Wade ak beneen waay boo xamante ni c'est une personne encore non identifiée X alors ñu nekk loo xamante ni c'est comme si beneen dossier dafa juddu dans l'affaire de Adji Sarr mu nekk loo xamante ni Ousmane Sonko da leen porte plainte pour tentative de de d'escroquerie justement wala euh, tentative justement de corruption wala euh, jéem a tordre le cou ou bien faire obstruction à la justice pour nga xamante ni li ko doon fexel pour mu quand même porter plainte contre contre ñooñu. waaw il paraît que Viviane Wade c' est un pseudonyme euh, elle s' pas réellement comme ça peut-être loolu moo waral X. du turam non du turam. du turam. d' alors léegi entre guillemets voilà c' est pas son nom c' est un pseudo. Mm. alors léegi. Euh, plainte boobu euh, ça vient à son heure parce que xëy na tey jii euh, bu doyen des juges complété woon àggali woon yoon bi mu jëloon parce que woowoon na Mamour Diallo bien que yàggu fa def fa def fa def fa trente minutes woowoon na nu mu tuddati Sidi Ahmed Mbaye hmm. donc ñu ngi doon séentu mu woo Gabi Sow ñu ngi doon séentu mu woo maître Dior mu ngi doon séentu mu woo chauffeur beeg ñëpp ñi bokk ci complot bi parce que après la confrontation ñëpp jàppoon nañu ñi xam bokk ni nu yoon di doxee ñëpp jàppoon nañu ni mm-hmm. euh, juge bi mu ngi commencé instruire à décharge pour Ousmane Sonko et à charge contre les comploteurs léegi bu jékki-jékkee arrêté mais nit ñi dañuy poser poser wu des questions parce que rumeur bi ñu jot euh, fan yi mooy def na avis de clôture du dossier euh, ba yónnee ko avocat wu défense bi donc ça veut dire que mu ngi bëgg a clôturer dossier bi léegi bu fekkee ni procureur demandé wul complément d'information dafay clôturer dossier bi donc clôturer dossier bi san dem jusqu'au bout de ces auditions la euh, c'est un problème parce que Mamour Diallo implication ci dossier bi dafa dafa dafa leer. mais bu jàppee ne am na les éléments nécessaires tey waaw mais euh, xam nga entendrul toutes les parties parce que ñëpp gis nañu ni euh, maître Dior Diagne yónnee na par inadvertance benn message ci lu mu teyul mhm. benn message maître Bamba Cissé bu mu naan euh, Ousmane Sonko mënuñu ko arte pour viol mais nañu fexe ba yóbbu ko tribunal gàkkal deram comme DSK Dominique Strauss-Kahn ba lu mën a bokk ci élection 2024. kooku loolu. Euh, SMS bi nga xam ni moom la maître Bamba Cissé jot. te mu jóge ci téléphone maître Dior Diagne loolu lañ ci bind. ci tënk. te loolu dañ ko dañ ko euh, constaté par voie d'huissier. Mhm. kon euh, ku mel noonu waroon nañ ko entendre parce que du n'importe kii mhm. mooy jabaru ministre de l'intérieur. bi nga xam ne. moo jox Adji Sarr sécurité donc euh, kooku je crois que juge bi waroon na intéressé wu ci lan moo tax mu am préoccupation boobu euh, euh, Alfousseynou Alfousseynou Gueye mhm. médecin bi nga xam ni mooy def rapport médical bi bi mu demaatee une deuxième fois mhm. moom wax na juge bi ni Mamour Diallo ak Gabi Sow dañ ko doon woo que jéem nañ ko sax ger loolu wax na ko sax publiquement que jéem nañ ko ger xam nga loolu aussi ñi mu ko wax ñu ngi fii te porté wuñu ki mu tuumaal ni daf ko indil xaalis mu ngi fii te porté wul plainte ki mu wax ni daf ko doon woo am na ay capture ay screenshot ak yëpp ak ay fadette maanaam mën na tracer appel yeeg yooyu tout ça ba ni enregistré na ko ba waa ji ni ko nañu dem nañu dem euh, WhatsApp parce que kii bi wóoru xam nga mais loolu ça devait intéresser l'enquête loolu bu intéressé wul enquête nag enquête bi nag mais la défense va ouvrir ce dossier la par une plainte parce que bu bëggee mottali liggéeyu juge bi parce que jàpp nañu ni àggul mais plainte bi dina permettre au moins beneen juge un autre cabinet connaître de ce dossier parce que léegi ñooñu mën nañu mën nañ leen woow ñoom ñëpp euh, pour pour leeral ni ñoom dañ doon fexeel benn doomu aadama pour dugal ko d'accord alors oh, ok ok alors déjà euh, déjà euh, plainte boobu déposé nañ ko ci au niveau du procureur alors certainement dinañ leen war a déglu mais après bu ñu leen déglu dina euh, dinañu def ce qu'on appelle beneen ouverture d'une information judiciaire pour def également instruction juge euh, le juge d'instruction amaat beneen soxla war a dégluwaat ñooñu pour xool exactement loolu nga xamante ni la wax chef d'accusation ñu toppee leen ñu xool exactement est-ce que les faits sont établis mais entre temps Ousmane Sonko gis nañ comme noo ko waxee le juge a dafa def ay avis pour xool euh, ñaari parti pour yëgal leen ne bëgg na tënk dossier bi mais aussi aujourd'hui puisque d'après ñaari parti yooyu ñu lu ñu wax est-ce que mën nañoo xaar lu ñu am li ñu wooyee l'ordonnance de renvoi du dossier auprès du tribunal sachant que euh, l'accusatrice n'a pas mis sur la table des documents ou bien des, des éléments de preuve non xam nga ñun duñu juge duñu tribunal mais juge bi hmm. euh, ci ñuy gis do xool suivre dossier bi yëpp hmm. amul benn élément bu ko permettre mu renvoyer devant une juridiction de jugement donte ñu ngi koy njort euh, loolu bu ñu ko defee forcing lay doon euh, dootul doon justice mais forcing lay doon parce que dossier de viol la ñu wax hmm. certificat médical bi attesté wul viol accusé bi indiwul benn preuve sur la table buy wane ni dañ ko violé autre que sa parole. mais dafay xaar jour du procès. Euh, si bu su procès amul nag non c'est-à-dire euh, euh, gis nga gis nga am na am na kilifa bu violé moom xaaruñu jour du procès de toutes les preuves sont sur la table du juge juge bi daf ko daf ko tout de suite. ñu ñu ñu ñu ñu kii ko ñu ñu ñu placé ko su mandat de mm. parce que dafa am ay éléments. concordant concret ay preuves scientifiques ay scellés ay preuves matérielles lu leer donc kooku ñoom ñi ko ñi ko tuumaal tooguñu xaar procès pour wane ni kii dafa jalgati dafa violé xaaruñu procès c'est comme ça que ça se passe donc am naa preuve maa ngi denc ci jamono joo xam ni mbamb gaa ngi la topp coow laa ngi la topp ndiiraan baa ngi la topp loolu yenuwul maanaam parce euh, <laughs> mais mais mais certificat médical moo war a nekk première preuve. mais est-ce que aussi le laaj euh, Ousmane Sonko yenn question yi ne du ma ci mu def libre interprétation pour war a mën a. non libre interprétation mooy nga basé wu ci euh, euh, certificat médical parce que viol dafa am définition ci code pénal mhm. léegi définition boobu certificat médical mooy xool ndax loolu am na wala amul certificat médical bi waxul ni loolu am na mhm. kon loolu yoon dàq na ko kon bépp beneen question. question bu subjective lay doon parce que euh, ndaw si moo waroon a indi les preuves de son accusation indiwu ko témoins yi ñu indi yëpp dañu décharger Ousmane Sonko ñiy liggéey Sweet Beauté yëpp aji Sarr mooy la seule accusatrice léegi kooku bu fekkee ne dafa ànd ak un politicien Sidi Ahmed Mbaye ci oto un autre politicien Mamour Diallo mu jël un un avocat Gabi boo xam ne dafa teg pression médecin bi nga xam ni moo def euh, certificat médical bi ba kooku mu ngi nekk ci menace ba dégg naa dellu na dëkkam parce que se sont plus en sécurité bàyyi na liggéeyam parce que parce que am na problème xam nga ñu dem a dem ba ñu dégg Mamour Diallo ci boppam mm-hmm. euh, muy digaale aji Adji Sarr ni euh, li mu ko li mu wax li mu waxanteeg moom dana ko respecter mais après procès comme si ñoom wóor na leen ni procès dafa dafa acté kon ci côté boobu amuñu dara dara dara dara luy étayer une accusation de viol kon juge bi bu fekkee ni day ren day day jox beneen moo naataango juge am pour mu atte ko ban élément la koy jox buy wane ni lii lu ñu mën a atte ci yoon la pour viol amul ci dossier bi euh, le juge n'a qu'un seul choix euh, non lii rek mooy mooy mooy yoonu dossier bi Et toute autre décision ne serait pas quand même une décision de justice. non non non kese la la la yoon nangu ci dossier bi parce que amul benn fait concordant par contre du côté de l'accusé Ousmane Sonko moom indi na ay preuves yu wane ni dañ ko fexeel teg na ci table bi le rapport interne de la gendarmerie boo xam ne dañ ci entendre ña mëne woon enquête bi. Mm-hmm. y compris un certain commandant Mbeng qui est passé lieutenant-colonel li euh, euh, euh, nu mu tuuti nu mu sergent chef xam nga sergent chef lieutenant-colonel je crois il est passé lieutenant-colonel léegi kooku il a dit dans son témoignage que procureur ba woon moo ko sant mu am ay extraits yu mu génnee ci procès verbal yi sëñ Bassirou Gueye mhm. Euh, yoo xam ni dafay favorable ci usman Sonko ba noppi yokk ci loo xam ni dafay chargé Ousmane Sonko mooy photo yooyu ñu jël ci internet kon loolu wane na ni le maître des poursuites ci boppam bokk na ci ñu doon manipuler. mooy document bu Ousmane Sonko doon brandir. waaw waaw mooy le rapport interne de la gendarmerie. le maître des poursuites ci boppam bokk na ci di doon manipuler dossier bi. kon rapport boobu existe parce que am na ñuy douter est-ce que. non kenn doutewul euh, le rapport existe. et, et il a été versé au dossier et loolu mooy mooy corsé parce que doyen des juges rapport boobu rek nga transmettre ko loolu ça veut dire que y a pas matière à juger rapport boobu kese kese ça règle la problème procureur moomu ni naa def loolu ñoom seen gàcc la ñoom justice te procureur boobu am na ñaari plainte yu ko yu ko donc une disciplinaire loolu moo jiitu plent ñoom Adji Sarr beek euh, ñoom Mamour Diallo bi loolu bu leen ko fàtte aussi jar na fàttali mmh. kon accusation bi am na rapport boobu am na témoignage à décharge u Ndeye Khady deuxième masseuse bi jëkkëru ndey Khady euh, capitaine bi def enquête bi ñëw na témoigner médecin bi def euh, euh, certificat médical bi témoigner na deux fois wane ni dara amul wax na ni sax femme bi ñu ko indil c'était pas une femme traumatisée wala ku jaaxle wala ku ñu agressé xam nga ku ku ku am sérénité léegi ñi nga xam ni laal nañu de près ou de loin ci enquête bi yëpp ñu ngi nekk di am ay problème te bu leen fàtte ni Fulbert Badji bi nga xam ni dafa disparaître mhm. ñu bëri njortu nañu ni rapport boobu fuité euh, moo tax euh, li ko dal dal ko. Fulbert Fulbert Fulbert Fulbert Sambou. Euh, Didier non Didier Badji laa bëggoon. Didier Badji. Mhm. moom moo nekk gendarmerie. moom li mu disparaître. ñu bëri jàpp nañu ni. Euh, c'est lié à ce rapport là bi nga xam ni àgg na ba ci loxo Ousmane Sonko. d'accord àgg na ba ci loxo yeneen journaliste kon accusation bi euh, euh, défense bi am na ay preuves yu étayées ni complot la rawatina nag dernier audio yi nga xam ni moom la MC Niass. Mm-hmm. versé ci dossier bi boo xam ni. dafa tëj débat bi. mais yi tamit waaw c'est des éléments crédibles. parce que nit ñay wax audio ojo ojo rek mais ay appel téléphonique yu ñu enregistré appel dafa am lu ñuy wax fadet c'est-à-dire euh, Sonatel mën na tracer appel yi ba noppi jël enregistrement yi par su par par voie de réquisition parce que même euh, rapport gendarmerie bi am na ci ay réquisition téléphonique yoo xam ne dafa déchargé Ousmane Sonko yu posé problème euh, te ñu bëri nee nañu Didier moo defoon réquisition téléphonique yi moom la ñu yebaloon pour mu defee réquisition téléphonique yi. waaw donc Didier Badji. Didier Badji ok donc léegi euh, euh, effectivement enregistrement yooyu ñuy tuddee audio ay enregistrement appel téléphonique la yoo xam ne day jóge ci numéro X dem ci numéro Y heure telle date telle donc lu ñu mën a tracer la. loolu moo ko wutaleeg ojo boo enregistré nii rek yónnee ko nga xam ni mën nañ ko euh, mën nañ ko soppi. mais boo demee def réquisition la ñu waxante loolu lañ lay extraire jox la ay extrait bu ñu demandé ay extrait de communication dañuy mën a mën a mën a mën a mën a mën a mën a mën a firndeel li ñu dégg ci audio yi nii lu am la te loolu je crois que les avocats de la défense ont dû le demander parce que xam nañu seen liggéey bu baax te xam nañu ni nouvelle technologie yi doxee parce que élément bu mel noonu boo ko amee pour la défence de ton client mais da ngay def requête boobu ça ça doit être ça doit mën nañ def retracé mën nañ ko retracé ñuy def réquisition téléphonique mais aussi information yooyu ñuy euh, laaj ñu am ko mun na doon information yoo xamante ni yu fausse parce que Adji Sarr dégg nañ ko ne. Euh. man la maa wax maa nekk ci mais réalité li ma doon wax du dëgg quand même. Euh, information. nee na da xool ndax sëriñam xam nga xam nga un juge. yow tey jii buñu la indilee. kuy wax dëgg ak kuy wax safaan mhm. yow sax xel moo lay war a may ni kii li muy wax dëgg la wala kii safaan la juge bi mooy apprécier loolu juge bi mooy déglu Adji Sarr mi ni woon dafa biir Ousmane Sonko moo ko biiral euh, dafa biir euh, Ndeye Khady ne woon na ko mu yàq biiram euh, et cetera et cetera et cetera mujj gi ñu laaj ko ko mu ni bëgguma ci wax c'est c'est c'est une question privée bëgguma wax sama vie lool loolu dama ko bëgg garder privé mhm. mu dem ba ci biir ni moom musta wax loolu donc léegi juge bi nga xam ne observé na kooku kooku ñu indi ko audioom mu laaj ko ndax kii sa baat la mu ni ko waaw waaye li ma ciy wax li ma ci wax yëpp dara du ci dëgg mm-hmm. kon kooku kàddoom nak nga ko mënta tuddee fausse information bu fekkee ni dañu mën retracer appel téléphonique di def ci ay extrait ñu dégg mu wax loolu juste pour authentifier audio yi rek la léegi nag moom mu ni wax na dëgg ak waxul dëgg loolu juge bi moo war a am intime conviction ni ko opinion bi amee ñun ñii niñ ci amee suñu suñu suñu suñu religion suñu intime conviction juge bi noonu la ci amee intime conviction parce que euh, mag yi nee nañu wax dëgg wax bu ci benn fen amee jàppal ni wax bi yëpp fen mag yi loolu la ñuy wax donc euh, en en fonction logique tamit mhm. Euh, loolu la ñu indi euh, sur la loi sur la vérité universelle donc euh, yanuwul maanaa. ok mais mais aussi Mamour Diallo mi nga xamante ni dañu ñëpp dañuy wax ne c'est lui